waaw mbokk yi ba tey ñu nekk ci ndar rek ak la télévision Dental TV ni ñu leen ko waxee woon ñu toog ak kenn koo xam ni ci sëti Serigne Touba yi la waaye ngeen xam ko ci politique muy Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké nekk ci parti bu nuy wax PDS parti démocratique du Sénégal ñu ñëw fekk ko fii tey ci ñaar rakk yi am mbégte ak kontante fekk ko fi ngir dëpp ko suñ micro mu wax ñu tey lan la yéeg ci bés bi lan la yëg tey ci ñaar rakk yi. Euh, asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan seen site bi tey am nañu mbégte mu rëy ndax euh, tey ñëw nañu ci bis boo xam ne tey suñu demee tey ba ku mu neex fu la neex jullee tey ñaari rakkandar yi tey ñoo ko waral kon bis la boo xamante ne ku fi ñëw rek la ngay njëkk a yëg mooy bis bi ci lañu ci la julli maanaam taxawee ci Sénégal ndax ñaari rakkay Serigne Touba yi moo waral tey ku mu neex tey taxawal sa jàkka wala sa jumaa fu la neex kon bis la boo xamante ne dama ne du murid yi rek a ko moom waaye jullit yëpp a ko war di màggal ndax euh, bis la boo xam ne sëriñ Touba bis bi bi mu jullee fii moo waral tey ku mu neex fu la neex say jullee fa tey kon tey am nañu mbégte mu rëy tey ñëw fi teewal fi suñ bopp waaye teewal fi président lay Wade teewal fi président Karim Wade mais aussi itam teewal fi mbooleem ñi nga xamante ne nii euh, ci biir parti démocratique Sénégal la bokk ñu def une forte délégation ñëw fi ngir màggal si bis bi ndax bis la boo xam ne adduna bi yëpp ko war a màggal waaw. waaw euh, ñu gis tey mbooloo mi ni ñu wuy see bés bi taalibe yi fu na jóge nañ fa waxuma la ci Sénégal waaye ci àddina ñëw ci bis bi yow en dehors waaye Serigne Touba di sa maam ngay chef yor ay taalibe jiite leen di leen tette jëme ci Serigne bi tey bés bi nan la def ak nan ngay lan ngay ñaax ndaw ñi nga xamante ni riir nañu wutali Serigne bi. Ah, li ma leen di ñaax rek mooy ñu jël exemple ci bis bi ndax ah, bis bi li waraloon Serigne Touba ñëw jàkkaarloo gouverneur waxtu julli jot mu kàbbar loola dafay wane ne ndaw ñi war nañoo góor góorgóorlu ci diine war nañoo góorgóorlu ci jàmm yàlla. ndax bari na kilifa yoo xam ne ba ñu ñëwee jàkkaarloo gouverneur dañoo tiit ba julli wuñ moom bi mu ñëwee jàkkaarloo gouverneur dafa kàbbar ñaari rakka kàbbar julli ñaari rakka kon loolu rek wane na ne Serigne Touba am na fu mu teg julli ba tax na ndaw ñi liñ leen di digal mooy ñu mu ci jaamu yàlla nangoo julli nangoo jaamu yàlla nangoo nekk ci lu baax ndax Serigne loolu rek la bëgg te loolu it la soxla ci nun loolu daal la mooy message bi nga xam ne moom laay wax xale yi. jërëjëf jërëjëf